ginnaaw Rebeuss Nord Foire ak Thiaroye directeur bu office national de l'assainissement di wéyali liggéey bu takk bi mu sumb bu yàgg tey jii nag Colobane moo ay ci wàllu assainissement. ñu ngi woon Rebeuss liggéey bi jeexagul Rebeuss ñu ngi woon Thiaroye pare na ñu ngi yoof ñu ngi Nord Foire ñu ngi ay zone yu bëri loolu yëpp li ñu yëkkati mooy seet nit ñi naka la ñuy def pour faj seen soxla defe naa projet bi am na ñaar fukki at ci année 2018 bi ñu nekk nii le gouvernement bi décidé que day def 500 millions de francs CFA. pour réaliser projet bi defe naa loo xame ne askan bi mu ko doon xaar bu yàgg yàgg. lu mat ñaar fukki at su ma yeboo sax wax ne lu ëpp ñaar fukki at képp koo xam ne fii nga dëkk moo xam ne danga am ndomb tànk wala nga am euh, kàddu fu mu mënti doon lii war wax nga ci dox nga ci jox nga ko solo boo xam ne xam nañ ne yàlla nag mooy mooy sottal waaye mu sotti yéene yi ñëpp la woon alhamdulilah mën nañu wax alhamdulilah bi nga xamee ne yàlla def na. ci jamonoy ñii yor tey réew mi ak ci jamonoy sunu mbokk mii taxaw di monsieur Sakho monsieur Lassana Sakho yàlla dogal mbir mi sotti. alhamdulilah bi ko état xamee ba teg ko ci loxo yi ñi ma ko war a teg ba ñooñu àggal ko fi mu war a àggee ndax ku ci nekk da nga ci am cër. bëgg nañ ñëw si visite bi nga xam nañ ko ànd ak DG ONAS bi visite li fi li fi nekk. muy wane ne euh, prix bi nga xam ne le président de la république son excellence Macky Sall na ko au bien-être de la population ñu génn enveloppe lu ëpp 300 et quelques millions pour offrir à la population de de Colobane un cadre de de de vie. ngir dundinu askan wi mucc ayib njiitu ONAS bi daal dina sàkku liggéey yu mën a yemb fileek weer. li ci des nag mooy dañu bëggoon mu pare ci diiru weer. mais pour ne pas dire weer defe naa am nañ jafe-jafe yu tuuti defe naa nañ ciy jàpp ñu nag mairie bi ak collectivité locale bi pour mu sotti. techniciens yi wax nañu également dans un mois suñu fekkee réglé nañ problème évacuation entreprise bi danañ danañ danañ projet danañ terminer projet bi et tey bi nga xamee ne ñëpp song nañ ko monsieur Sakho bi bu ñëwee ko moom technicien la xool na ba xam na lan la trouvé nañu financement ñu ngi koy def. loolu rek moo am solo. ci teewaay jotaay bile ñu ràññee ci adjoint préfet bu Dakar Plateau moom mi lee di ñaax askan wi ñu góorgóorlu baax ci sàmm boobu le projet. bu ñu ko defee te population après wuñ ko jëluñ ko seen bopp di ko saytu aussi du am du am njëriñ donc dañuy lancer un appel à l'endroit de cette population ñu gën si góorgóorlu. ONAS di wéyale liggéey bi mu sumb ci biir réew mi ci lu njiital réew mi di président ma Sall.